Birame Sène journaliste RDV. Birame Sène li nga gis ci tey noo ko dundee ak lan nga gis xalaat. lu yéeme lu kenn mënta naatable te xel mënu koo nangu mooy yëpp ko bokk gis li nga xamante ne bii dix-sept heures euh, cinquante cinq minutes jot na maanaam dix-huit heures ci la ñu commencé defaraat seen dispositif ñun ñi nga xam ne ñooy la presse bi nekkoon ci biir ñu organiser wu toog ci benn point di leen xaar waaye bi ñu paree. dix dix-huit heures pile minutes am ñu ñëw ba approché wuñu bu ñu yegsee ci ñun nag li ñu xamal mooy ñu génn ci biti ñu wax ñu ne ñu préfet moo leen jox ndigal loolu xaw ma nag lan moo lalu ci ginnaaw lu mel waaye li leer ba leer mooy dégg ba wax naa la ko xëy na dooma xam waaye ñuy dégg sama kàddu mu jaar biir Walf dinañ xam ni di fay laa couvrir élection bii mooy sama sixième élection ma couvrir ko tey laa mës a gis bu ñu génnee alors que ñun dañu daan nekk sax ci biir waxuma la centre de vote bi mais bureau de vote de vote bi parce que fii tamit fii tamit qu'on le veuille pas li nga xamante ni bi mooy euh, attraction bi mooy le bureau numéro six fi nga xamante ni fii la candidat le bureau numéro huit fi nga xam ni le candidat Benno Bokk Yaakaar fi la voté foofu la ñu waroon a xam fan la wànnante mujj ak gëtëm waaye li li nga xam ne moo ci gën a yéeme mooy nit ñi génnee am na ñu nekk ca biir te su te ñooñu du ñu représentant parti du ñu représentant Sénat du ñu ñoo xamante ni war nañu leen a mën a xam bu ñu bokk li leer ba leer mooy duñu leen biñ ñuy génne ñoom ñoom itam bàyyi dañ leen ci biir leneen loo xam ne itam am ndey gumba jar naa ñaawlu ni woon ay tubaab dañuy des ci biir moo xam représentant presse étrangère bi loolu nag bëjum bëjum kanax borom a koy fajal boppam ñu ni leen loolu moom ku ci dal loolu yàlla dogal na antuwul ñun ñëpp bokk nañu génn waaye am na ay militants yu des ci biir te loolu leer ba leer tey tey laaj soobee mos a gis fi ñu génne journaliste centre de vote waaw Fatou ñoo ko déggandoo. allo Fatou Faye. waaw ñu ngi lay dégg ne Kumba waaw. dégg nañu ko éclairage yooyu muy mbir mu doy waar. Ah. journaliste yëpp a ngi di jaaxle. Ah, doy na waar pour yéen ngeen war a jëlee résultat kon bu fekkee dañ leen a génne. ah bu ñu leen génnee ma ne noo leen def am résultat. te xamuñu ndax ñëpp génn nañ ba pare te dañoo bàyyi woon ñaari tubaab ci biir euh, ay blanc ñu leen euh, ñoom ñu ngi leen ñu ngi leen noo taxañ leen benn ngeen sànni ngeen xam de ñëppay génn comme nee ngeen dañuy génn ñëppay génn ci lañ xam ne jaaxaana ñu ñu doog a génne waale ñoom tamit te li ci gën a yéeme ci ñu toogoon saa yeeg yooyu jël nañ ci ay fu nekk quatre personnes ñu dañuy dem jàppale leen ci dépouillement bi ñu ne leen au nom de quoi ñu di texte ko wax ba pare journaliste yëpp ñu ngi nii si dugg jaaxle nañu ndax ñii six heures du si ñëw ñii sept heures ñii huit euh, ba heure bi bureau bi nga xam ne candidat Benno Bokk Yaakaar nekk au pouvoir ñu ne génne leen journaliste kenn mës ko ci élection ndax am na ñu fi def élection deux mille 2007 depuis 2012 tey 2019 2024 ñoom bu ko xëy defee lii dina am leneen lu muy ñëw wala dina ñaawal xel Fatou Diouf Faye. situation boo nekk ci HLM Grand Médine ki nga xam ni coalition Benno Bokk Yaakaar. Mhm. Euh, euh, seen candidat fii la mhm. voté bureau numéro 8. doy na waar lu xew foofu ndey Koumba Diop kan comme niñ ko xamale euh, ayoba na waar xam naa ci dañuy jéem a tàggatoo